Ababacar euh, Gaye maa ngi lay nuyu. waaw Ndeye Comba maa ngi lay fay. di nuyu sa auditeurs yëpp. Mm-hmm. ak membre de la coalition Dundu coordonnateur président Madani Kane euh, déjà naka nga gisee visite bi nga xam ne président Diomaye Diakhar Faye amal ko fële maa ngi lay gërëm di la Eh, waaw li may wax ci visite bi man pour man luy jaar yoon la loo xam ni wax dëgg yàlla ci tradition au Sénégal noonu la mës a demee il faut que ñun ñi fàttaliku ne tam dañoo am benn relation bu historique ñun ak France boo xamante ni France moom moo colonisé Sénégal donc tey li nga xamante ni mooy li jaar yoon mooy président bu fi mënti falu li nga am visite officielle boo xamante ni di ko def pour jaamaarloo jàkkaarloo ak président wu France pour ñu mën a waxtaan ci relation yi nga xamante ne ñun am nañ ko ndaxte ñaari dëkk yu ànd la yoo xamante ni séparé leen nekkul lu yomb donc comme ñaar ñu war a ànd dañu war a ànd waaye nañ ànd ci li nga xamante ni ku ci nekk dina gis boppam ci ànd bi donc man pour man visite boobu visite bu jaar yoon la bu war a am la parce que ñaari dëkk la yoo xamante ni seen alaaxa dafa yàgg li ñu sikk yàgg na donc lu jaar yoon la Hmm. Euh, te yow kon yan terme de de de partenariat ngay xaar yu bees ci diggante Sénégal ak France ak régime Diomaye bi. waaw xam nga nag euh, ñoom dafa am lu nga lu ñu jaay sénégalais yi ñoom dañu jaay sénégalais yi Sénégal dafa war a moom boppam parce que dañu jàppoon ni Sénégal moomul boppam donc boo koy xool ba ci biir di nga xam ne ñoom partenariat yi nga xamante ni mës nañ koo am ak France ñoom mosu neex parce que yàgg nañ leen dégg ñu di ko wax donc tey jii bokk na ci lu tax sénégalais yi sax daan leen sànnil carte lu baree bare donc tey jii ñoom li ñu xaar ci ñoom mooy ci waxtaan yooyu nga xamante ni ñu ngi koy am di ko di nas moom ak président euh, français bi donc tey li ñuy yaakaar mooy dinañ mën a waxtaan loo xamante ni tey jëm ci intérêt wu Sénégal Sénégal dina ci gisaat boppam bu baax a baax ndaxte ay nit bu ñuy ànd waruñu ànd ci ànd boo xamante rek kenn rek moo ciy gis boppam. te relation yi ñoom liñ ñu wax parce que dañuy yàgg jàpp ne relation yëpp France rek moo ci daan gis bopp donc tey nag comme ñoom ay souveraineté lañ donc li ñuy xaar ci ñoom mooy bu ñu ñëwee ñu taxaw ci waxtaan yi ci clause yi ñuy am taxaw ne ñun nii ak nii lañ ko gisee pour que Sénégal mën ci gis bopp Mm. Uh, tey jii kon uh, est-ce que yow ànd nga si si ñuy wax ni uh, dañu war a xeex di jële fi franc CFA waaw wala déet waaw xam nga dëkk nag bu moom boppam mooy dëkk bu am xaalisu boppam ndax euh, dëkk nag balaa ngay mom sa bopp day fekk nga am sa xaalisu bopp nga mën a am nga mën a nekk un pays souverain waaw su fekkee ni dans le long terme maanaam ci ci ci lu gudd ci diir bu gudd waaw mën nañ jëm ci loolu ndax nag euh, ñëpp xam nañ ni pour nga génn ci franc CFA nekkul lu yomb dafa am ay vraiment ay levier yoo xamante ne dañ ko war a ay changement de euh, dañu war a assainir déjà condition macroéconomique bi yenn yu bëree bëri dañ ko war a xool donc nekkul loo xamante ni rek da ngay ñëw ci benn cinq pour mën koo def donc nekkul lu yom yomb waaw bëgg nañu mu am suñu xaalisu bokk waaye nag nañ ko leeral xool yoon bi ñuy jaar ba mu leer balaa ñuy yegg ci lool parce que man jàpp naa ne nekkul loo xamante ne dañuy xëy rek. Euh, li nga xamante aussi yóbbu woon euh, Diomaye fële ca France bokk euh, si loo xamante ni lépp luy wàllum vaccin ak innovation vaccinale Afrique di ko defal boppam naka nga gisee initiative boobule est-ce que jàpp nga ni lu ñu mën a réaliser la waaw wala déet. waaw ndeytu ba question bi dafa dafa am solo. parce que nag li ñuy wan solo bi question bi am mooy gis nañ bi fi Covid 19 mujjee am ndax ay pays africains yu bëri amoon nañ coono pour am ay vaccin donc ñi nga xamante ne amoon nañ ay relation privilégiée ak yenn dëkk ñoom ñoo jotoon am sax ay vaccin am na ñeneen ñoo xamante dafa compliqué tey waaw dañu war a dem ci loolu africain surtout souveraineté sanitaire pharmaceutique yooyu yëpp wax dëgg yàlla Afrique war na ci mën a yegg parce que ñu ngi vingt et unième ci nekk ci des questions yu sensibles yu mel ni ay santé ku ci nekk war nga ci mën am sa hmm. pour que nag suba bu yu mel ni bett de ku ci nekk di nga war a mën a gérer sa dëkk. Hmm. Euh, li nga xamante ni mooy euh, mesures yi euh, réew mi njiitu réew mi jël wala régime Euh, Diomaye wala chef du gouvernement di Ousmane Sonko ngir wàññi euh, dundut gu cher gi yenn denrées yi nga xam ni moom la ñuy gën a jëfandikoo di euh, ceeb diwlin sucre ak mburu ak ciment bi aussi naka nga gisee mesures yi. waaw ay ci yu baax la bu fekkee ni concrétisé wu waaye dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a li tubaab naan mettre les charrues avant les bœufs cest à dafa am koo xamante ni fara war a jiitu déggoon nañ PM bi moom Sonko waxoon ne mu ngi doon waxtaan ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi waaye gannaaw ba ñu waxtaanee ba pare ba def communiqué officiel génnee seen communiqué ne wàññi nañ ci lii wàññi nañ ci ceeb lii wàññi nañ ci leneen ak leneen gis nañ la lendemain ki nga xamante ne ñun ñooy nekk ci boulanger yi génn ñëw wax la contraire ne wàññi bi mënagul ne parce que ñoom lii ñu leen wax wàññi wàññiwuñu saagu farine wàññiwuñu leneen ak leneen donc pour man au préalable dafa am yenn yoo xamante ne la ñu waroon xool ba noppi balaa ñuy def benn communiqué pour wax ak askan bi et man pour man waruñoo yàqamti yow jox nañ la temps waxtaanal na na waxtaan bi gën a yaatu nga laal levier yëpp yi nga xamante ni yëpp moom la ñu war a laal pour que wàññi bi mën a effectif nga doog a wax waxi wàññi waaye boo ko waxee nit ñi di ko xaar gis na ni wàññi nekkagul lu am gis nga ni sax ñi waroon wàññi sax ñoom d'accorduñu ni wàññi bi waroon am amul ba euh, ñu gis ni ñu ngi déguerpir un peu partout à Dakar ñi nga xam ne ñooy marchands ambulants ak tablier yi euh, nanga gisee mbir moomu est-ce que jàpp nga ni lu baax la wala baaxul. waaw jàpp naa ni bu dee ci xar kanamu dëkk bi. li nga xam ne mooy taaral dëkk bi dinañ ne waaw parce que boo gisee ñuy dem waaye marchand ambulant nag dafa am fépp ci àdduna bi waaye tey ji Sénégal rawatina dëkk yu mel ni ñun suñu réew yi nga xamante ne dafa bëriwul liggéey liggéey bi bëriwul ndaw yi bëgg nañu liggéey waaye amuñu ci lu ñu jàpp te war nañu dundal seen njaboot yi dundal seen way jur donc ñooñu tey ci marché boobu la ñu yaakaaree am pour lu ñu mën a dundal seen i njaboot te amuñu ay moyens yu leen may ñu mën a jël ay magasin parce que magasin yi léegi nag ñoom li ñu mën a def mooy nekk ci marché bi di jaay parce que ci loolu noonu la ñuy mën a dundee au jour le jour ñooñu tey mënoo ñëw rek nga ne da nga leen a dindi foofu baay leen ñu dem toog seen kër yi balaa ngay wax waxi dindi na la wóor na la ne ñii am nga foo leen boo ko deful nga ne da leen bëgg jëlee foofu lan ñu dem toog seen kër yi toog ah man jàpp naa ne loolu du xalaat loolu du xalaat te wax dëgg yàlla position wu dund ci loolu ba il nit ñi li ñu war a li ñuy yaakaar pour dundee ko nga bëgg leen jëlee foofu ci dem toog seen kër su boobaa lan ñu dundee ah, donc loolu jàpp nañ ne loolu mu xalaat. Euh, ñu laaj la aussi si beneen ponk bu am solo muy euh, Sénégal fiñ ñu toll nii nekk na uh, producteur de pétrole mu nekk euh, loo xam ni concerné na sénégalais bu ne parce que bokk na si ressources yi yow ban jàngat nga si am lan ngay ñaax autorités yi par rapport ak niñ ko nar a exploité. waaw xam nga euh, loolu itam ba man pour man dafa am loo xam ne constitution sénégalaise def ko wax pare dafa ne teraanga bi nga xamante ne am nañ ko ci suñu suuf yi muy pétrole muy gaz muy or muy leneen ak leneen loolu askan bi ñoo ko moom donc ñun liñ ciy xaar rek mooy li nga xam ne askan bi moo ko moom na delluwaat ci te nouvelle autorité itam loolu la ñu yàgg jaay dañ ñu yàgg jaay pétrole bi nit ñi dañ koy jël di def leneen dafa donte sax exploité wu woon waaye ñoom dañ di xeex ci loolu donc ñun li ñuy xaar mooy retombée économique yi ñu am askan bi mën ci gis bopp donc euh, ñun wax dëgg yàlla loolu la ñuy xaar et loolu mooy li yoon loolu mooy li war a am li war a am mooy li nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëpp dañ ci war a gis Mhm. nga bokk ci coalition dund kon ma lay laaj euh, question boo xam ne dina am trait ak seen coalition tey jii euh, pour dund gi oyof ci sénégalais yi lan la euh, lan ngay suggérer exactement lan mooy solution bi. waaw pour dund gi oyof ci sénégalais yi jamono bi ñu toll nii daa xaw a compliqué ndax ñëpp xam nañ ni yow loo xam ne maîtriser woo ko pour nga wàññi dafay xaw a lu lu lu xaw doy waar waaye. tey ku mel ni président Madara moom dafa am lu ci xalaat président Madara moom mën nañ dafay achat groupé tey jii mbir yi cher na waaye xam nga ne tey maam Kumba yow booy jënd kilo liibar nga xamante ne yow lii nga soxla ci secteur bi nga dëkk ñu ñun ñëpp nañ booloo dem jënd bu ñu demee dañ koy jënd en te boo koy jënd détail dafay gën a cher mais nañ nañ nañu jéem a yóbbu ci ñuy def ay achat groupé bu ñuy def achat groupé même bu dee 1000 francs de plus bi nga ciy gagné di nga ko ci gagné mën a peñaat ci peñal agère donc ñun li ñu xaar déjà mooy conduite du changement c'est-à-dire loolu waxtaan la laaj il faut ñu waxtaan ak sénégalais wax leen ne situation bi lii mu fi am léegi nag li fi am nii pour ñu jóge fi pour mën a yomb il faut que ci suñu comportement yi ñu changer doxalin léegi nag pour changer doxalin bi yii ma wax nii benn la ci nañu def ay achats groupés nañu def yeneen ak yeneen yi ni dina yombal nit ba nga xamee ni mbir mi dina gën a mën a yomb ci ci waaye bu fekkee li ñuy xaar loo xam ne maîtriser woo ko. ceeb bi moomoo ko diwlin bi pare yeneen ak yeneen donc boo nee xëy da ngay xëy rek wàññiko loolu daanaka da ngay wax loo xamante ne ci waxu politique politique rek la waaye nekkul loo xamante ñi il faut quand même Sénégal war ko je pense que changement bi am ci réew itam loolu la Sénégalais yi di xaar ñu bañ leen di leen wax loo xamante ne li ñu bëgg a dégg la waaye ñu leen di wax te loolu itam man pour man dafa am solo pour man ñu régler problème nañu waxante dëgg fenn waaye ñaareel bi laal ay levier yoo xamante ne buñ ko defee nit ñi jënd beeg jaay bi dina gën jënd bi dina gën mën a yomb ci ñun ndax ku nekk booy jënd détail mu lay jar cinq cent buñ ko booleen do ñooy dana la dikkee juróom fukk wala mu juróom benn fukk donc man ñun loolu lañ mooy li nga xamante ne mooy suñu xalaat ci loolu hmm. merci beaucoup Ababacar euh, ngay doo ci tontu bi nga tontu suñuy laaj jërëjëf Makhoupa maa lay remercier voilà di nuyu membre coalition bu biir fépp fu mën a nekk nuyu président Mouhamadou Madana Kane di ko remercier baax a baax moom ci kilifteefam ak njàmbaarteem moo am ba taxaw ba xeexam Sénégal ñuy fàttali ni Ababacar Ngaye Do membre nga ci coalition Dundu coordonnateur du cabinet du président Madani Kane jërëjëf Ababacar Ngaye Do jërëjëf